asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yonant bi sallallahu alayhi wa ñu ngi nuyu njiitu kër gi di ko ñaanal tawféex ak jàmm muy bugaan ñu ngi koy ñaanal wér ñu ngi nuyu personnel bi topp si ginnaawam di nuyu Sénégal yëpp maa ngi nuyu Cheikh Mbacke Ndiaye si Pikine askan wi di nuyu Soxna Gagne si maa ngi nuyu Cheikh Thiaw ak soxnaam Aminata Gueye di nuyu le commissaire Demba Sarr ak le colonel Moussa Fall de Eaux maa ngi nuyu Afimax Espagne di nuyu le directeur du centre horticole bu Cambérène monsieur Traoré maa ngi nuyu As Fall bu Alamine si yëmbal di transporteur bu mag ñu ngi nuyu Mamadou Ndiaye di sapeur à la retraite ak monsieur le maire Madi Fall yal na yàlla dolli jàmm ak dal si réew mi tey dañu ñëw si toujours si septième séquence su émission yi surtout wàllu xale bu xale bi juddoo nag surtout semaine yu njëkk yi dafa am lu muy jànkonteel si ay tawat ñett yi ñu si a ràññeetlu mooy xale bi dinay bari lu muy rote mel dafa am liquide buy jéeg muy gàll ban loolu muy uqeel di am ok ban loolu muy éternuement mel dafay tisoo lu bëri daa ñëw si lan moo waral loolu lu ko sabab ak lan nañu mën a def ba saafara loolu daa ñëw si les coliques chez l'enfant chez le nouveau-né muy ay méttitu biir yu tar yoo xam ne day toog yàgg rek moom xale bi yuuxu sa leeru day ñëw si colique yooyu leen wax nan lay tàmbalee lu koy sabab nan lay woo ak nu ñuy def ba gérer ko ak lu koy prévenir aussi lu koy gàttandu suñu pree si loolu nga xam ni dafa laal wàll woowu dañuy ñëw si nag la constipation chez l'enfant ndax liir yi bari lu ñuy seere mais bu boobaa dañuy wax lan mooy seere d'abord ndax ñu bëri dañ naan seere te xamuñu luy seere dafa am lu normal ak lu normal lu xale ak loo xam ne si mag dañ ko tudde seere te si xale dañ ko tudde seere ak ndax lan moo sabab seere boobu ndax si meew mi la wala si lekk gi yàgg yaay ji lekk la ak lu ñu koy soppee ñetti façon cabinet yi yi xale yi cabinet nañ ci ñëw ñetti façon la lañ ci ñëw bu su nekk ñu wax nu muy mel ak bisu normal bisu normalul suñu paree si deuxième fànn boobu fi ñuy jeexale mooy dañ ñëw toujours si wàllu hérédité muy génétique wane maanaam si ñaar ñiy sëy ku góor ki ku jigéen ki nañ lañu mën a def ba favoriser am doom bu góor wala bu jigéen bien que yàlla nag mooy maye mooy def lépp mais am na si xam-xamu mag yi ñu fi bàyyoon yoo xamante ne danañ si mën a ñëw dañu wone aussi walu génétique lan motax ñu ni ku goor ki rek moy responsable sexe manam ndax goor la xalé bi doom la jigen si ku goor ki la sabab weku wekul si ku jigen lool dana ñew leeral ko ndax dafa bari yo xamanteni am jangat la akum jangale kon baax na nit ñi aussi di xam lu bari sen dundil plante yi baax na garab yi faj bi mais di yé nit ñi aussi leen gindi baax na loolu lu mat a bàyyi xel la. kon lii moo nekk na nekk septième séquence bu ñu war a aborder ci ay thèmes toujours si juróom-ñetteelu partie muy xaaj bu seen wér yaram émission bi nag comme ni ma ko waxee rek toujours samedi lay am bu 14h45 jotee ginnaaw tisbaar ak dimanche. ginnaaw tàkkusaan muy 18 heures ngeen bàyyi si xel te it lu leen si rëccin ngeen kar ko toujours si YouTube bi ndax danañ koy dugal foofu incha allah chaîne YouTube bi nag Samba Mara TV la tudd Serigne Sam non Serigne Samba Ndiaye TV Serigne Samba Ndiaye TV bu dee si Apple bi da ngeen recherché Pajam Cosaan TV bu dee Android la ngeen recherché sunu wérgu yaram sama wérgu yaram ak xam sa yaram incha allah question yi ni ñu indi ñaar la. kii dafay laaj li ñuy wax épine calcanéenne épine calcanéenne lu koy sabab ak luy indi saafara saafara bi daal la gën a bëgg sax ñu tënkal ko ko lu doy waar nag ndax si suuf plat du pied bi lay nekk tànk fi ngay teg sa suuf tànk si suuf fii foofu lay nekk ndëggu bi day mel ni yax gi daal moom day laal daal yi bu nga sol bokk na si li koy sabab nag daal yi ngeen di sol rek foog ngeen xoolaat daal yi dañ si ñëw bu baax def si émission spéciale sax mais li ma lay tegtal daal mooy da ngay wut euh, ñetti doomu limon boo amee ñetti doomu limon nga nal ko si kaas jël nen bu ñorul toj ko jël xott nen yi ko kii bi tàbbal si biir limon boo ko si bàyyee waxtu maanaam xott nen yi dafay seey si ndox limon bi nga dolli si lii litre ndox soo paree nga segg ko di ko naan par kaasu attaaya boo ndekkee boo añoo digal naa ko juba daal ginnaaw yàlla loolu leen si dimbali kii daf ni daal moom jabet ko sonal ak tension dama lay jëkk conseil nag mooy boo amee jabet am tension boole leen na ngay surveiller say rein wàllu rein nag ñu ngi si ay études yu poussé te bari na yoo xamante ni fi mu ne ñu ngi koy faj hydronéphrose ak di dilatation des cavités pluricalcielles yooyu yëpp ñu ngi koy traité fi mu nekk nii si plante yi kon bu mu dalati nit rek ñu yaakaar ne insuffisance rénale ñëw na déedéet dañ koy faj si plante ba mu wér si kàttanu yàlla. kon loolu ñu bàyyi xel mais na nga surveiller ti faral di vérifier sa créa sa urée ak xool saw bi ndax amul albumine trace albumine loolu dafa baax xam boo amee diabète wala tension di xool saw bi ndax amul suukar aussi donc loolu dafa ba di contrôler su loolu weesoo nag bu dee jabet bi nga wut xobu mango joxoon naa ko si benn émission fan yi nga jël fukki xob nga baxal ko si litre ndox ak genn wàll cinq minutes nga segg ko saa yoo xëyee bala ngay dekk dara nga naan si kaas bu mag ginnaaw loolu nga wut juróom-ñaari xobu loolu yee baxal ko si litre ndox su baxee juróom minutes nga segg ko di ko naan par genn wàll kaas boo ndekkee boo aña xam nga bu ngeen fàttali ko si émission yi passé bu ngeen recherché di ngeen ko gis waxoon naa fi ni xobu mango boo ko lay jël te mosoo am jabet sax yàlla mën lim doo ko am waaw même boo nekk si famille diabétique del jël xobu mango di ko def nii ma lay wax si kattanu yàlla jabet du la gaaw a dal bu dee wàllu tension bi dangay ngay wut limon ñetti doomu limon yotal nii laaj bi nga tas ko jël si gélules yi ñett jël ñett doomu jinjar jël nga bu persil nga achet leen def ko si diita ndox bu tàng ak genn wàll bàyyi ba mu sedd nga segg ko di ko naan par genn wàll kaas boo ndékkee boo añoo kooku non seulement dafay wàcc suukar dafay wàcc tension mais bu say roño commencé woon am jafe-jafe daf koy daf koy delloosi kon ñi yaakaar ni rein bu commencé yàqu rek c'est irréversible njuumte la ndax bari nañu indi ay échographie yoo xamante ni amoon nañ ay cavité péricardiale di dilaté wu ñi amoon ay hydronéphose si kàttanu yàlla garab la leen jox mu dañ ñi seen créa yéegoon ñu ko si kàttanu yàlla kon loolu lu mat a bàyyi xel li ñu leen tàggu fii leen jox naa beneen jotaay jërëjëf.